xamante ne mooy sama poudre bi comme ni ma koy waxee. ni mu baaxee ci yaramu xale. noonu la baaxee ci mag góor jigéen ñëpp ko mën a utiliser bu dee xale jigéen ñi waaw mën nga koy poudre sa kanam macha allah benn picc du ca nekk bu dee xale yu góor yi mën nga koy def boo dee sol chaussure nga sotti ko ci ba tamit boo ci bëggee poudre ba tey mën nga cee poudre. <laughs> ma daal di ñëw ci sama couche bi sama couche bi nga xam ne pour classe ak maman mbay gi moo ko tax a jóg nee na mati couche bi neex na. doy na tampon la boo xam ne tarkal la macha allah boo koy utiliser damaa dafa juum tampon la boo xam ne neex na dund coton bi 100% la daw leen a dama ko fan faat mën nañu koy gis dañu xam lu muy def <laughs> li nga xamante mooy couche bi nag euh, coton bi 100% la amul dara ci synthétique boo ko couché xale bi mooy sama saak nag yóbbaale ma sama benn tuddee doom déedéet doom jigéen la waaye man la ko tuddee boo fa nekkee da ko naan jaay ma boo seeti wallaay franc eh, ngaa kii dafa laa jëm si de parce que bi pour ñoom bébé si ah, nekk foofu sa yaraax moom tamit yaa ma gën a xam sama doom bu jigéen bi sama doom bi nga bëgg a jaxase waaye mënoo ko am Mohamed <laughs> xam moom daf maa bëgg boo te moom dafa bëgg li nga xamante mooy gaamu baby met foofu ca era waaye li nga xamante ne bii ni mooy vaseline bi xale mag ñëpp ko mën a utiliser rawatina jamono bii nga xamante ne ci lañ nekk bu sa yaram dee wow <laughs> mbaa nga xamante ne day fett da ngay daal di jël li nga xamante ne mooy vaseline bi baax na torop ngeen daal di koy kar maas huile bi ba tey pour xale moo ko tax a jóg waaye li nga xamante ne mooy mag tamit da gis li nga xam ne mooy boppam yaramu xale dafa laaj ñu koy maase bu baax a baax daw leen gaaw jënd ji ko mi ngi ci seen table bi di jaajëfal bu baax a baax sama gàmbu yaa bi ndax li may wax saa su ne peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya boo leen di seetaan émission bi di bëggee tarkal la a à baby met la kon di ko jaajëfal bu baax a baax daal di bàyyi leen Abou Mouhamed mu daal li nga xamante ne mooy seen programme waaye bu ma gisee la ma sàjj tey nag sama <laughs> génnee sama weer noonu waaw du <laughs> yow lii moo gën a jàpp naturellement lii sa karaw la xoolal mu jekkee ah. lii moo gën gee teg ay greffage non bàyyi yooyu baaxul ay greffage yi da lay sonal sa mm. karaw baax na normal la mm. sa maquillage set na normal na ngay bëgg lu xumb yow man loolu moo ma jaaxal. dëgg la lii nga sol nii lan la lan la tudd. waaw lii nag moom chiffon la ku nekk xam dañoo. chiffon men tàngaay waaw da ngay daal di saa la sa. <laughs> waaw comme <laughs> ah, <laughs> que da ngay daal di jël numéro téléphone bi soo ci bëggee Sadji numéro bi 77 la 2. te ngaa joxe mu def la yërëm. numéro 83. 88. dimbali mi ngeen yàlla ngeen ñëw bëgg ko takk ko kii de dee <laughs> kii li ngeen ko dimbali ma dama ne ñaaw yëpp a ngi ay ma ñu ma dimbali yërëm ñu ma di ko naroo nii rek ci bi at bii. ay ak Mouhamed ma demal rek ñu lay bàyyeele di la ndeyeele rek ngay dem. <laughs> incha allah non di nga sëy nag balaa décembre bi mu soobee yàlla di nga sëy am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm képp koo xam ne nag kilifa dina nga ci réew mi waaye di sant yàlla bi nga xam ne moom moo ñu sàkk ba ñu nekk doomu aadama julli ci yonent bi Muhammad paix et salut sur lui ak njabootu yonent yàlla Yeesu xel mu sell gërëm nag képp koo xam ne kilifa diina nga ñun ñuy gërëm suñu ñaari waajur yi nga xam ne ñoom ñooñu meññ ba ñu nekk tey ay euh, nit yoo xam ne nag euh, Sénégal yi ñu ñuy teg ba di ñu ñaanal kon dañ ci sante suñu ay waajur waaye mbokk yi ñu jiital njabootu Alaaji Omar Fuutiwu Taal teg ci Sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général kulu murid fi yàgg te wér sëriñ si xalif général day Tidiane yàlla yàlla gudd fanam Pape Malick si bi yoroon kaddu kër ga yàlla na ci àjjana gën a kawe ziar nañ tamit sëriñ sëriñ sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général day Baye Fall yàlla yàlla dëgëral euh, euh, taxawaayam sëriñ Cheikh Ahmed ah, Tidiane Niass bi fi nekkoon xalif mi dina Baye yàlla xippee ci àjjana gën a kawe waaye suñu Baye Pape Mahi Niass xalif général bu Medina Baye yàlla yàlla gudd fanam sëriñ maam Abdoulaye Thiaw xalif bu Laayeen yàlla yàlla gudd fanam sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass Selewal Niassène yàlla yàlla gudd fanam Baye Adi Thiam ci Medina Baye yàlla yàlla gudd fanam imaam Cheikh Cissé ci Medina Baye yal na yàlla gudd fanam. amiin Serigne Cheikh Bekay Kunta xalif général bi nga xam ne nag moom mooy. Euh, Cheikh Bekay Kunta moom tamit ñu ngi ñaanal tamit waa Ndiassane yëpp ak njabootam yàlla yàlla defal dafa jàmm Serigne Abdourahmane Seck xalif bu Thiénaba yàlla yàlla gudd fanam njabootu Thierno Bassirou Tall xalif ba di euh, Thierno Bassirou Tall doom ji di Cheikh Omar yàlla yàlla gudd fanam njabootu bu Serigne Amadou Baro Jigéen yàlla yàlla defal jàmm Chérif Khaya Aydara ca Nimzaat yàlla yàlla defal jàmm njabootu Serigne Mohamed Lamine Ngom ca Paal yàlla defal jàmm njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass yàlla ko yàlla defal jàmm jàmm njabootu Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu maam sheikh Mbaye yàlla ko yàlla defal jàmm njabootu Serigne Mansour Cissé ca Pire yàlla na yàlla defal jàmm njabootu Serigne maam Abdou Dramé xalif bu ndànd bu xalif bu ndànd yàlla na yàlla defal jàmm di njabootu tamit sëriñ maam Abdou Cissé xaalif bu am na ku ko wuutu danañ ca ñëw bi nga xam ne nag moom mooy alaaji Moodu maam euh, maam Cissé mi nga xam ne mooy xaalif jamal jaamal di alaaji Moodu maam Cissé yàlla ko yàlla defal jàmm waaye ñuy am mbégte ak contentement ci Cerno Mbadaani Taal xaalif bu Cerno Muntaga Taal yàlla ko yàlla defal jàmm njabootu Cheikh Moussa Camara njabootu Cheikh Moussa Cissé borom euh, borom borom borom Cheikh Moussa Cissé borom daaru ñu ngi koy ñu di leen ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram Cheikh Moussa Cissé njàmbe borom daaru ca parce que ko yàlla defal jàmm Cerno Abdourahmane Bari waali Kaamin ca Bogol yàlla ko yàlla defal jàmm sëriñ Abo Mbàkke xalifa sëñ Fàllu Mbàkke suñu sëriñ suñu papa yàlla ko yàlla may fan bu gudd wul sëñ Abo Mbàkke yàlla yàlla guddal sa fan sëñ Abo Mbàkke sama papa sama xarit yàlla yàlla defal jàmm sëñ Fàllu Mbàkke docteur sama sëriñ sama docteur moom tamit yàlla ko yàlla may fan bu gudd gudd di ko ñaanal ak jëriñ Moustapha Sène mu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom yàlla ko yàlla defal jàmm waaye ñuy am mbégte contentement de ziar ki nga xam ne nag moom mooy euh, euh, alaaji Cerno Sama Sama Mora bi di waaliyu kaamil dëkk ci Fuuta yàlla ko yàlla defal jàmm waaye di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy imam Fansu Bodian xalif général de la communauté Joola yàlla ko yàlla defal jàmm lu ma musul def laay def sama soxna moo may woo xaar ma wuyu ko en direct allo ami mbaa jàmm la coupé na kon ñu am mbégte contentement di nuyu sëñ Cheikh Salim Mbacké xalifa sëñ Salim ko yàlla defal jàmm di nuyu tamit bu baax di am mbégte contentement ci njaboot bi nga xam ne maa leen di waaj lim ci Fuuta Cerno Bokar Alpha Ba war a fonde yàlla yàlla gudda fanam Cerno Maodo Adama Gaye ca ñànk idi yàlla yàlla gudda gudda fanam Sëriñ Habib Gaye Mouhamadou Sëñ Mansour Si yàlla yàlla gudda fanam sëriñ Maama Sugu Waadaan yal na yàlla gudda fanam alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Pass yal yàlla gudda fanam sëriñ Abdou Mbakke sëriñ Mama mi nga xam ne mu nekk ci télé bi di maquilleuse yàlla gudda fanam cardinal Théodore Adrien Sarr Monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak mboolem chrétien bu nekk ci réew mi ci barke yonent yàlla Yeesu Christ sa xel mu sell mi yàlla defal jàmm maître Fatima Fall mooy responsable Adja Kine si Adja Kine si nag xam ngeen ne doom la ci Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum bi ñuy jooy te ba nopp guñu yàlla ko yàlla xale àjjana yi gën a kawe waaye suñu yaay Adja Kine si yàlla yàlla gudd fanam Serigne Babacar Abdoul Aziz si sa Tiwaawan yàlla ko yàlla may fan bu gudd sama baay la maa ngi koy jooy te nopp guñu alaaji tafsir saaxu ilimaan na ko yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe imaam ratib bu Banjul alaaji Aliou Maska yàlla yàlla gudd fanam alaaji xaale mbaay bëgg mbaxal dëgg ca Sarakunda yalla ko yalla defal jàmm sëriñ Gora Seye serviteur de l'islam yàlla ko yàlla may jàmm ki nga xam ne mooy Pape Amad Ndiaye di nodd ci jumaa sëñ Babacar Sy rabal taala am borom baatu wurus bi yàlla ko yàlla defal jàmm góor gi Ablaye Niang jànkatu xasaan la woon yàlla yàlla fi mu xippee ci àjjana gën a kawe caamaas ñuy nuyu fii nga xam ne mooy Daaru Rilwan njabootu Alaaji Basiru Touré ca Daaru Rilwan yàlla yàlla defal jàmm ca na Salaam Serigne Xayri Touré ziar nañ njaboot gi yëpp yàlla yàlla defal jàmm waaye Serigne Mansour Ndiaye Baye Fallou Serigne Fallou Touré yàlla yàlla defal jàmm Chérif Abdoul Moutalib Tidiane sënna ci Cheikh Ahmed Tidiane ci Pikine yàlla ko yàlla may fan bu gudd ah suñu baay ja nga xam ne nag démb ci guddi woona ma di Serigne Hadi Touré nekk ca Fass Touré yal na ko yàlla defal jàmm Serigne Hadi Cissé Touré ca Fass Touré yal na yàlla gudda fanam Serigne Mouhamadou Moustapha Sow Waliyu Kamil xalif maam Abdoulaye Sow ca Dagana yal na yàlla gudda fanam Alaaji Mouhamadou Aysata xalif bu Guet Ardo yal na ko yàlla may fan bu gudd Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye xalif bu Louboudou Kër Momar Sarr yal na yàlla gudda fanam njabatu alaaji mbàkke tànjan di nekkoon waaliw kaamin te dëkk ca Medina tànjan góor googu dëddu na àdduna waaye njabatu mi nekk ci Medina tànjan yal na yàlla guddal seen fan di nit ki nga xam ne mooy Cerno Alassane Mbaye di taalibe Cerno Aliou Thiam yàlla guddal fanam ma Massamba Dramé mi nga xam ne moo fi nekkoon xalifu Serigne Maktar Kala Dramé góor gu baax gi ko fi wuutu te toog ci jal bi yal na yàlla guddal fanam waaye Serigne Cheikh Rijal sekk yàlla ko yàlla may fan bu gudd sëriñ Abdoulahi Diagne Kang nekk ca croisement Ngoudiane yal ko yàlla may fan bu gudd sëriñ Mouhamadou Kabirou Sarr xalif bu Alaaji Moustapha Sarr ca gën ginnaaw yal na ko yàlla may fan bu gudd alaaji Cheikh Baba Jong fils de alaaji Baba Jong muhaddam la ci Seydi Hadji Malick ci Podor quartier Ndiobène yàlla yàlla gudd fanam Serigne Ahmadou Seck xale bu alaaji Seck Seck ci Xurdaan yàlla fanam waaye alaaji Cerno bari fat fat ca Gambie koy ñaanal fan bu gudd ak gu yaram di ziar ki nga xam ne mooy imam Mansour Seck nekk ca yëmbal yàlla ko yàlla defal jàmm suñu yaay di ajartu ndey su euh, bu Cerno Muntaga taal yàlla ko yàlla may fan bu gudd ci li ma xam waxoon kilifa diine yëpp yal na yàlla guddal seen fan Serigne Jili Samb marabu chef religieux dëkk ca Kalté Samba Lawbe gare routière yal na ko bu gudd Alaaji Cerno Baro yal na ko yàlla defal jàmm Serigne Modou Faye Serigne Modou Faye bu gël na yàlla guddal a xamee ci turu bu maam Baxar xalif bu baay xalif bu bi nga xam ne mooy Medina Mballe yal na yàlla defal jàmm may ñi nga xam ne mooy xalif bu Niass bi di xale fu baayam yàlla ko yàlla may fan bu gudd waaye caamaas ñuy am mbégte ak contentement bu bak ci dëkk bi nga xam ne nag moo nekk euh, ca ca ca ca ca booy dem ca Passy di kilifa diine bu mag ñi sant saanoxo yal yàlla defal jàmm moom ay kilifa diine yu mag a mag yoo xam ne nag euh, euh, ay nit yàlla dëgg ñoo xam ne foo dëgg yàlla lépp loo xam ne ñu nga koy def rek ca dëkk boobu nga xam ne mooy Alaaji Banfa Karamoxo Saanoxo di xalif général bu Touba Saanoxo di di ko ñaanal fan bu a gudd gëram góor gi alaaji banfa karam wax saano ko yalla yàlla guddal sa fan waaye caamaas oh. sama góor gu baax gii nga xam ne mooy góor gi alaaji yat ma deer yalla yàlla guddal sa fan alaaji yan ma dee taaliba sëñ Babacar Si yàlla sa fan gudd may la fan bu gudd ak wér gu yaram borom njàmbu faal yal na yàlla defal jàmm borom njàmbu faal yal na yàlla guddal fan góor gi yan ma dee taaliba sëñ Babacar Si rabi taala anu yal na yàlla defal jàmm may la fan bu gudd ak wér gu yaram yal yàlla defal li nga xam ne mooy mooy tawfiix waaye may la bu gudd ak wér gu yaram góor gee ibbi li nga xam ne mooy internat di jàngal xale yi daara kenn du fay dara ba pare di fay professeur ya yaa bëgg taaliba Cheikh bi yaa bëgg sëñ Babacar Si rabi taala anu yal na yàlla yàggal sa jàmm surga Ablaye Der yàlla ko fan. amiin yaa rabbal alamin Thiamas. Oh. kilifa diine yi yal na leen yàlla sàmm. amiin siir. yal na leen yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram. bilaay siir. yal na leen yàlla aar yàggal leen ci yoonu siraatal mustaqim. amiin siir. ñi nga xam ne ñoo nekk ci àddina yàgg ak ñun yàlla ñu fi yàgg te wér. bilaay siir. ñi nga xam ne ñoo dëddu àdduna yàlla yàlla xara ci àddina gën a. bilaay siir. Thiamas tur yi ñuy tudd nii. Mhm. wax fa dëgg yàlla dajagul Sénégal sax. barke yonent bi. lii ay 20 pour cent la ci waaliyu kaamil yi nekk Sénégal. barke yonent bi am na ñu bëri ñoo xam ne ña nga toog kenn tuddugu leen te xamaguñ leen waaye danañ ca dem ba egg ca il faut que Sénégal daj ñu xam kilifa diine yi ñii li ñu liggéeyal Sénégal balaa lamp di am dañ doon taal ay matt di jàng alxuraan di teg yoonu xale yi siraatal mustaqim léegi la rek àdduna doxee ni états ñëw ak ciment yi waaye ci néegu ñax lañ doon jaamoo yàlla te duñu gis dara loo xam ne mbiru courant la dëddu àdduna dëddu li nga xam ne mooy bànneexu àdduna nekk ci yoonu siraatal mustaqim ñoo ñoo téye li nga xam ne mooy mooy Sénégal ñoo téye li nga xam ne mooy réew mi waaye kilifa diine yi ku leen warmal yàlla warmal leen ñun dara waa télé bi xam nañ ci dara moo taxit mooy buntu télé bi te TFM bu ma yeewoo suba teel du ma ko seetaan 6 heures laay seetaan sama émission bu jeexee fay naa télé bi. nga di loolu moo ci intéressé. ndax kilifa diine yi sag la ci ñun ak sag nañ ci ñun mbokk yi. waaw maître El Hadj ci boppam nañuy dem seeti wax na ba sonn Macky Sall woo ko romb romb na si buntu palais bi Macky Sall woo ko léegi nag jóge na fi nga xam ne mooy tribunal ba. di dem fi nga xam ne mooy pale ba ñu seeti maître El Hadj ca pale ba buntu pale ba nan la koy dundee moom kese la nag kenn nekk foon moo doon jaabante li muy way ndax Macky dina ko dégg ko dégg ñu seete ko ah. Ah, day yomb day yomb dama dem ba buntu pale ba taxaw fa comme que moom woowu ma waxuma di xam ne ñooy noonu démbam di leen fal dama dem ba dina ma dégg waaw waaw rek may ma rek ok bébé waaw na xale yi ñu ngi reer na ñëpp reer baa ngi nii aduna aduna saxaru si dem ba mu la jëlee saxaru tey nit ku amul dara nit ku dul juum amul nit ku dul nit ku dul amul ba fàtte sa dem ba sa dem sa tey sa dem bi nga paanee ci àll bi ñoo doon puus bi nga paanee ci àll bi ñoo la doon puus nit ku dul juum nit ku dul juum ah amul nit ku dul juum de amul ci mi waaw yàlla rek moo dul juum dëgg la waaw juuf lay def fii ah damay taxaw di way ah léegi da ngay woo naa ko ñaari baat ñëwul dëgg la def naa conférence presse déglu ma faalewu ma dëgg la xaar naa appel bu jóge ci moom faalewu ma. Mhm. léegi damay way d'accord mais Diouf est-ce que munoo jàpp bay lépp te ko ci suuf. day yomb muñ ba beneen yoon. pour nga xam day yomb. ah ki kii kii kii waa ji ci ñu ko fal ci laa bokk. Benno Bokk Yaakaar laa nekk samay militant dañ ko votel muy dem di woo ay Idrissa Seck di woo ay yeneen yeneen ñoo xam ne man ma dama xeeb. day yomb xeebu la am naa ci 4 pour cent yoo ne ñoo ñoo ko votel. day yomb. waaw mais woo na ñëpp woowu mu muñul jàpp ci yàlla ba beneen yoon yow tamit. démb bu doon tey. ah waaye ma ne démb bu doon tey. démb bu ma xamoon nii nga mel. aa ah, du ma dugg ci yow. <laughs> nii waaye dama ne kii gisugul dara. Eh, kii gisugul dara. Diouf kii gisugul dara. Diouf. Alpha Condé Alpha Condé. am mu yéen waaw waaw. Diouf Diouf arrêté. sëñ bu fekkee da nga gaaw a fàtte maa ngi lay fàttali ba nga dama ne eh eh eh. <laughs> eh, eh yaakaaroon ni mu ko léegi. Diouf ah. yii ngay wax kër gi sax tey kenn newu fi yow. kër gi tey kenn newu fi ay gardien da nga ko fi ne. waaw ah, gardien dañ ko nettali. waaw mais ma soxlaa fu ne nga dugg. ma soxlaa fu ne nga dugg. nguur jar na lii. Ah, yow yaa tax ma Karim xas bi Khalifa lu ne ma def ko waaye da nga yow ni ngeen mujjee man eh, eh. <laughs> <laughs> météo Umar Pène. ah waay waay waay ko ju waay ko dégg lay naqari. ah waay ko de. waaw ah, nañ ko dootali. waaye yow at dignité gi nga am ci réew mi. waaw ah. at li nga def ci réew mi. di avocat boo xamante ni nii wax dëgg yàlla ku ne avocat sa dem ci yow. dama maa yooloon demba nga leen dama ma war maa yooloon demba nga koy yooloon ma war eh eh sama xel dem na ci xumaan sama xel dem na ci xumaan. waaw. dégg nga bañ a def lii. waaye léegi xam nga lu ma bëgg. waaw xam nga lu ma bëgg lillahi wa rasulihi ndéem da ngaa jóge tribunal at sa blouse dem ñibbi. kii du ma ko bàyyi. ah loo kii du ma ko bàyyi dara. ngoyaane ngoyaane. Eh, eh, eh, bu ma yóbbu dikk tuur adduna ngi nii bu la politique jaralee bu ma yóbbu dikk tuur yow waaje génnal. waajan kii kenn defee ne. yow génnal laa wax. yow sa 50 pour cent yi man am naa ci cent soo ma falu tamit dinaa fal sa bopp. man de bi tëj nañ ko. waaw bu ñu ko tojee nag. waaw war a woo ñëpp woo nañ leen Diouf ñu ne war woo ñëpp woo nañ leen yow kenn wow la tee ngaa bàyyi buntu kër jàmbur yi te jàpp sa avocat bi at na mu solo. eh pataatu. Eh, mu yër ah yow yaa tooñ de. Eh, lu ma neex laay wax. yaa ngi tooñ de aa ma pataat. ah ah, ah déet doo ci buntu kër jàmbur naan pataatëf. góoxi la góoxi. Eh, mu yër waaw nguur jar na lii. waaw nguur jarul lii kii dama ko jàppale waruma fàtte lu ma neex laa ko wax. da ngay xar-xar xam na ma. da ngay da ngay xar-xar. da ngay eh, eh, xar eh, xam xar-xar. <laughs> yaa ko yàqul mën a xamee. jub léegi da ngay xar. Sonko yaa ko yor. moom bu dul kër jaam nga ñu ne Sonko yaa ko yor yaa ngi tooñ de. léegi rek. yaa ngi tooñ de. muñul ci jàpp ci yàlla te at na mu solo. waaw bu la fi bu la waay. at na mu solo. waaw nga ne. yow fii tën di yow kenn yow yaa ngi wax kenn génnut yow yaa ngi wax yaa ngi way kenn génnut def nga fi Umar Pen léegi def nga fa xumaan kenn génnut muñal muñal dem ba beneen yoon 2024 yàlla mën naa def nga bokk ci gouvernement bi at na solo li nga liggéey ci réew mi bari na musuma xam ne ñàkk jël day yóbbi nii nit mu yéen. xob yaa ngi dégg xobu ma yee. yee. loolu yee. danaa ko régal ah, jàmbur bi. yee bi ñu soxlaa dañ ñu woo woo bi ñu woo bi ñu soxlaa woo bi ñu la poussé takk da dem woo ñeneen waaye da nga woo ñeneen yóbbu nga ma Ismaël Lo de ah yow yóbbu nga ma Ismaël Lo te nga bàyyi lii lépp mu set yu bàyyi lépp mu set Diouf dugal ñibbi xaw nga tax xaw ma du yomb de fii kenn génnul wuy ma gaay gaay Diouf kii du génn ci kàttan yàlla ak mbaaxam du génn kaay rek su ma xamoon APR nii ngeen di maa ngi jégalu di baalu àq Sonko ñëpp ñi nga xam ne dama doon xeex maa ngi bàyyi ñoom àq waaye kii bàyyi am jàmm de nga ni ba am jàmm waaye dama rek Diouf bu ndaw bi ah waaw pale ban moo bu bi li li ruq la dara yow yaa fi mujj dugg yow yaa fi mujj dugg Diouf aywa Diouf yow yaa fi mujj dugg Abdou Diouf nii yaa ngi tooñ de dugg na fi dawalul nii nii waaye tooñ de fayal xaalis ceeb waaro bi. ah. ah ku caa xaalis gi du bàyyi kenn kon. kon kon boobu nga war a muñ. Eh! Diouf bàyyi kër bi yow tamit bàyyi kër jàmbur bi yow tamit nag yaa ngi tooñ nag ndax ñu ne dàq bari na te kenn ñëwul fii yow rek dañ fii sin fi buntu kër jàmbur bàyyi jàmbur bi mi ngi jàpp ñàmburam baal jàmbur bi mu ñëw ba. yow li nga wax Idrissa Seck yow li nga wax Idrissa Seck yow li nga mujjee yow naka de. Diouf yow li nga wax Idrissa Seck yow li nga mujjee yow naka de. Diouf yow loolu ça va partir lu la. Diouf yow yaa doon xasuloo Idrissa Seck yow. Diouf yow xam nga li bu fekkee li nga ñeme yow génnal. bàyyi bundu kër génnal yow. kër lay ko. ah 50 pour cent yow yow gañe ko man si laa bokk. Ah, tapet bi. ضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي am nañu mbégte ak kontaan bu mag ànd ak uh, ñëpp di seetaan émission Kouthia Show Alaaji Malick ca banque Jidda soppey ak uh, moom ak soxnam di soppey Alaaji Yatma Der yal na ko yàlla defal jàmm moom Alaaji Malick Soumaré yal ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu ko yàlla sàmm kooku di wëllëre Alaaji Yatma Der yal na yàlla gudd fanam

xalifa Kouthia Show Serigne mbakke Mbacke ibnu Khadim Mbacke ibnu Serigne Ibrahima Mbacke ibnu Khadim Rasoul Pikine Ikotaf 9 jantal Mara sama xarit boobu yàlla ko yàlla defal jàmm di am mbégte ak contentement bu mag nag ci cant maam Thierno Mbacke maam Thierno euh, mbakke ak Serigne Salim Mbacke par euh, Serigne Khadim Kamal moo koy amal ca Guédiawaye le 11 décembre euh, ca amokat yan yàlla may ñu fekk ko ñun ñëpp kenn bañ a manqué Thiamas ah, am na lu xew li xew nag ki ñu woo xamagul lu xew waaye yéen ñi seetaan yéen a njëkk xam li xew que kii ñu woo kon loolu doy na waar li xew ki ñu woo xamagul li xew waaye yéen ñi seetaan di ngeen xam li xew Mbaye Gueye Faye dafa am lu mu way ànd ak Youssou nduur lii mu woy ànd ak Youssou Ndour nag tey lay leer fii war a tey lay jaaree gën a leer euh, Thiamas de préférence ñu ngi koy nuyu moom ki nga xam ne nag sa soppe boobu di Serigne Malioune Seye nekk ca cees wax dëgg yàlla sagal gi nga xam ne sagal na ko yenn artistes yaa ngi ànd ak moom ci loolu di ko félicité ci jëf ju rafet yooyu nga xam ne tey boo xoolee artistes yu bëri ñu ngi commencé yor seen ay daamaar di suqaliku ci li nga xam ne moom mu jëf ju rafet boobu ci turu euh, képp koo xam ne comédien nga ci euh, koo xam ne artiste nga gërëm nañu jëf ju rafet jooju nga xam ne def na ko jëmale ko ci artistes yi moo tax it ki nga xam ne mooy euh, Thiamas mu ngi gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Serigne Medoune Seye borom taw féex ci li nga xam ne def na ko yàlla na ko yàlla defal jàmm ko fan bu dugg rek yaram mbokk yi waaw Mbaye Gueye Faye dañ ko woo te ku la woo wax la maa bu jox la fi ñu ko woo nag xam na lu ñu koy doyee dañu dem seeti mbéy fay. waaw def ça va et ko <laughs> yi ça va moom mooy jaay mbay njaay kii euh, euh, sama soxna si mam njaay mam njaay waaw moo koy jaay cuuraay waaw moo koy jaay cuuraay ah, maa waaw mbokk yi mi ngi noonu mi ngi noonu wax dëgg yàlla ginnaaw ba nu santaate yàlla julli ci yonent bi tey nag dañoo am gan gan ko spécial kii toog ah mooy xaritu Youssou Ndour nag kii toog ah mooy borom sañ-sañ Mbaye Gueye Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di gilli eh, di la gërëm. di gilli eh, di la sant. Mm-hmm. sëñ si biram jëye ca waay awa Ndiaye. Coro eh, Ndiaye te xam nga lëg daaru mbaay. lëg daaru mbaay. mooy sama maam. maam. borom juróom-ñaari galañ yi. di gilli sapp ñam sapaat ñam sapp ñam. sapp ñam sapaat ñam sapp ñam. di gilli bu safee ñetti yoon xamal ne baax na nga tëgg daal di dem. laay li la. moo tax ma ne sañ ñoo tàmbali wax te tàgguwuñu bañ géeju Ndakaaru Njaay. di gilli ba jëwul xam nga ne bañ géewul Ndakaaru Njaay man mii la. yow bay laa yow la. sëñ sëñ Birame Dieye ca wayaay awa jaañ. nga ni. sama waajur bu góor yàlla ko yàlla xara ci àjjana. amiin mbay. toogaay bi ma toog nii. uuf mm. xale yi. Mm-hmm. yàlla doon toogaay bu yàgg. dëgg la démb damay wax ak Baye Demba. ne ko kenn ku nekk ci xale yi booy dox ak booy wax. jàppal ne sa baay ni mu nekkee woon ci biir Medina. nga doxee noonu pour ñu xam ne ne seng-seng yar na ay doom dëgg lii. ba géwél Ndakaaru Ndiaye jël Jóob Sangomaare. jël Jóob Sangomaar. moo tax barke ma ne Yuusu. Yuusu waaye dëgg lii. mu ne man mbéy ma ne ko yuu. <laughs> mënu maa wax ak yow te duma tëgg sabar. nga ni kon balaa may tàmbali sabar yi njëkk nuyu ndax lu ma am tey tàmbar ma ko may. dëgg lii. eh. la ilaha eh. kon day digg lii Mame way digg lii bàkk bi nag Mame waaye digg lii. kon ñu waxtaan. wax dëgg yàlla tàggu na mbaar. ba mu ne pataas nderu mbax. a ah, sama xel nag am na fu mu dégg. Abbas. wax dëgg yàlla tey bàkk na bàkk goo xamante nii képp kuy doomu géwél wax dëgg yàlla boo déggee bàkk bi mbéy fa fay yóbbaale la. wax na ko léegi léegi may waaw dafa am loo xamante ni nii wax dëgg yàlla yow sa simon da ko fay defoon. Youssou Youssou sa xarit. ma bëggoon rusi bu fekkee loolu yem na mayel ma ku tuuti mbay gi déggu loolu dégg lii. ba koy may Abbas sama xarit la bu. jugee Gambie Abbas borom Gambie. xaratu mbay gay fay abbas may koy géej dafa sambara si la aw danoo fanaane napp ba fajar jàpp ñu dara di métti na ayo ay dem dem géej eh, jërëjëf Régis Mbaye waaw lu waral musique bi wax dëgg yàlla da nga cee wax wax ju am solo. waaw. wax dëgg yàlla ba yus na ne der waay maa mbay nag yaa ko feelu. waaw wax ci loo xamante ni nii wax dëgg yàlla guddi yi ne tol doon koo soxla lu waral wax jooju. waaw parce que bi ko yus di way. waaw ne ma mbay 4 heures matin. gisoo ne géej gi dafa sàmbaraa dafa sàmbaraa ma ne ko bu sàmbaraawee lëg daaru mbay lëg daaru mbay dégg mooy sama maam te ci géej gi lay fanaan <laughs> man bu ñu demee dinaa xam ndax dafa sambara ci laa wax may booy gi gi dafa sambara. waaw dañoo xëy. ba fa jàpp te jàppuñu dara. jàppuñu dara. mu nekk loo xam ne après Youssou dafa ne moom morceau bi may naa la ko. alhamdulilah rabbil alamin <laughs> alhamdulilah rabbil alamin may naa la morceau bi. ba Youssou Ndour yëkkatee morceau bi may ko mbay koy fay. Abass waaye dëgg lii Abass. tey mbay wax dëgg yàlla ñu soxla sa communication. ku ne xam ne ni gundu yuñ toll géej gi li muy jël ci doomu aadama kenn xam lu mu toll. wax dëgg yàlla. kii nga xamante ni nii mooy Macky Sall wax dëgg yàlla ne ndaw ci moom mbay balaa nuy tàmbali ñuy sori li enveloppe la cinquante million moo ci ne ah ku def lii li daal dana ko jox gouvernement bi la ko jox nga def sa préparation ndax li nga war ci marché bi nag wax dëgg yàlla nit dootu ko wayati suñu réew xam nga marché bi ma ñëw waaye dëgg lii <laughs> yàq yaay baaba jaaju bilaay yàq yaay baaba jaaj xam nga morceau bi Youssou sax créé ko maa ko moom. ay ah mu Youssou moomu ko yàq moom. déedéet dañu toog ci booru Soumbédioune bi. Mm-hmm. mu ne ko Youssou am naa inspiration ci géej bi mun ne ma allez maa ko jox texte bi maa ko jox mélodie bi. Mm-hmm. xaaral pour preuve ma woo ko ne ko dama soxla morceau bi. ok état bi da ko soxla. da ko état bee ko soxla fu mu toll nii. allo Zimo. waaye digg lii. waaw sa gars yi dañoo ma woo. nee nañu morceau mool bi dañu bëgg jëlaat may nga ma ko. lu ma la waxoon alhamdulilah rabbil alamin <laughs> maa ko moom yaa moom lu ma ci wax maa ko moom lu ma ci def maa ko moom alhamdulilah rabbil alamin ci bëgg ma def ko ci lu Macky Sall wax ci laay def alhamdulilah rabbil alamin ay ce ay ce euh, mbay waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax ba nga xamee ne morceau bi yow kenn moomu ko yow yu muy yaa ko moom xoolal wol rési ñu indiwaat morceau bi moo xam eh ma morceau bi mbay am lu mu wax ci morceau bi rési way digg lii muy eh muy yaay may waay may buy may booy bul dem géej soo demee géej géej gi sambara woy espagnol yaa ngi lay xaar te dañu lay digal bul dem da ngay bul dem toogal lay <laughs> li la may waay sommet 203 mu lab nga bul 3 1 2 mu lab nga bul laay eh, la ilaha illallah. waaw waaw waaw foofu waay. <laughs> xanaa li neex na nag. alhamdulilah rabbil alamin sax funtin nag temps bi doon xoj. cinquante millions. cinquante millions yooyu mi ngi noonu sa loxo léegi nag Mbaye leen rek la ñu bëgg. leen rek lanu bëgg. foog nga dugg ci gaal gi mbay ànd ak xale yi. waaw nu ñëpp cëpp toog ci gaal gi. mooy gaalu loo ci yi. bàyyi ba xale yi yéeg mbay nga yéeg toog. waxuñu ci tefes gi de mbay nga waaxu gal gay dem mbay nga toog gal gay dem mbay nga toog gal gay dem mbay nga toog ba ca digg ba mu wóor ne la yow fii la duusi ne nga xam ne vague yi day jug ba ci kaw nga xam ne vague yi day jug lu ma lu mu gàtt gàtt gàtt douze mètres mbay nga ci cipp taxaw wul ci xale yi wax ak ñoom yéen leen jàngal leen wax dëgg yàlla ba na bàyyi gaal gi mbay daal la nu bëgg ci yow te gis na ni yàq yaay baawa jaañ mën nga ko jamais de cent yaa ko fi wax mbay foo jëm ni mbay mbay foo jëm ni ah yow xanaa li may wax xanaa dégg naa ko dama lay wax rek loo wax mbay dama ni waaw li tax ñu jox la cinquante millions yii duna gis communication bu baax ci yow mhm. duna bëgg nga jël gaalaloo ci yii yii nga xam ne mën na ci sumba juñ waaw bàyyi ba xale yi yéeg mhm. nga yéeg toog mhm. yaa ngi dégg daw ba ci digg géej gi ba xam ne wóor na yaa ngi seen île de Canaries fa fa fa fa coow li amee la plupart fa la gaal gi këppee. waaw diggante ba gaal gi këppee nga di jëpp taxaw. waaw mbay. nga nga nga wax ak population bi. Mhm. wax xale yi dëpp leen ci gaal mhm. ndax way wii yaa ko fi way. Ah. te yaa di yaa ni jamais yaay Baba Diagne yaa wax lii. Euh, euh, ma leeral. nga leeral waaw way bi musuma ci way. ah mbay kii nga la aw bu ñu ko tëgg sa fekk ko. wër na yàlla coombaay ko tëgg. coombaay man. moo tëgg morceau bi man mosuma ko tëgg te ki taasu du man waxuma ci jegewuma ci. d'accord te man du ma lébu dëkkuma Medina. d'accord tudduma mbay sa suma gi fay man xàmmeewuma xanaa Jean Claude nañ may woo. Jean Claude Jean Claude Mimran. Mbay ay ca ma ñëw la wax. Mbay yow lëg daarooy sa maam. déedéet du lëg daaru mooy sama maam. kuy sa maam. ah loolu jara wax. eh waay ndaw. Joseph Mimran. Joseph man. moom rabu France je eh, m'appelle pas Mbaye. nu tudd Jacques. Jacques Mbaye di Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptée à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert. joyeux anniversaire à Serigne Mbacke Diong suñu jarbaat suñu xarit di ko ñaanal longue vie santé et beaucoup de bonheur di nuyu tamit bu baax Thierno Amat Sow dëkk ca Balande Kër Seck commune de Nguer Malal à côté de Budi Sakho moom tamit suñu xarit la mooy ki ma mayoon xar ya mayaat ma nag. ma fas. nga ni Thiamas xam lu ma lu ma may léegi. léegi lu mu la may néegu ñax. wuyaayooy. <laughs> ñaari néegu ñax la ma may. ñaari néegu ñax maanaam bu ma ñëwee tey foofu fa laay dalloo. diggal loolu. foto <laughs> baa ngoog. mu daa ilaah ilaah mi ngi Diop. mi ngi nii. <laughs> waay ci mbote la ma may. nag fas après ma ne. ñaari ñax <laughs> barki yonent bi loolu mooy boo ñëwatee am nga foo caamas. waaw. waaye lii lan la. Youssou Ndour dafa génn benn concept bu tudd fii tey. fii tey. fii tey nag soirée la. soirée la boo xam ne nit ñi ñooy woote ñaan morso Youssou Ndour way ko. dëgg la mais dafa am lu ci rax de. nga ni waaw fii tey moom mujj na nekk émission léegi. fii tey. waaw. jeex na. am na émission bu fi na a remplacer moom fii tay waaw am na émission buy puus fii tey ñëw. fii tey ñëw waaw xaw ma Kouthia mooy puus fii tey ñëw xaw ma ban émission mais daal ñu ngi koy waxtaanee pour fii tey puus kooku ñëw ndax lu tax ñu def ko émission ni waa ji doxalee la. la ilaha illallah. ñu bàyyi la nag animateur bu bees bi nga xam ne moo nekk ci télé bu bees bi di TFM di monsieur Youssou. Youssou Ndour Ndour dégg loolu. est-ce que vous êtes là yéen a ngi préparé dara du yomb dara du yomb fii tey concept bu bees la boo xam ne dañ koy def pour bégal leen et di may ñëpp nag jàmm euh, di nuyu ñu fi teew tey ci plateau bi orchestre baa ngi nii ci ginnaaw euh, mu nekk live and direct. live ak seen xarit seen soppe yuusu gën ngeen ma dégg mm-hmm. donc léegi concept bu ñuy dawal la pour jàppale. sénégalais yi ci seen stress yi nga xam ne ñu ngi koy dund pour mën a free life daal. est-ce que vous êtes là. <laughs> d'accord. mbokk yi mi ngi noonu kooku ngeen séen wax dëgg yàlla mooy waykat bu mag bi. kii ngeen seen mu toog mooy kii nga xamante ne nii raaye bu ñuy jël ci way kii toog jël na ko te Youssou Ndour nag dafa bëgg bëggal askan wi bëgg bëggal sénégalais yi képp ko amoon stress tey Youssou dafa laa bëgg wayal bëggal la fii tey di loo xamante ni ne tey daal tey daal Youssou dina ko rukk ba mu nooy nepp Youssou tey foo foo ñu yóbbu waaw tey dañuy ñëw bëggal ñëpp dëgg la génn ay morceaux yu bees mhm. gars yi wax bi ñu bëgg ñu tëgaat ko am ñu leen jot a préparé mais ñu ngi basé wu ci internet bi. internet bi ngeen basé wu. waaw gars yi doxal. gars yi doxal waaw doxalin bu bees la daal. gis nga bañ nañ ko ba boo xoolee bërëb bi dañ ko defaraat ba mu yànj. dëgg la rien que rek pour mën a indi sénégalais yi ñu mën a xàppi daal. ñu mën a xàppi. waaw kon. bu ma nuyoo sama orchestre bi ñoom mbay moo Mbaye Guèye Mosimo mhm. nuyu gars yëpp maa ngi leen di gërëm di nuyu tamit gaa yi liggéey fii affaire bi gaa yi liggéey affaire bi waaw Apulaay Apulaay moo nekk ci réalisation ak di nuyu tamit euh, caméraman bi ndeysaan waaw di nuyu caméraman bi kii kan la kii kii ko mooy mooy moo fi ñëw léegi fan jamono ah, waaw ñu moo koy wax mooy Mariama Mariama Mariama Yaase ki mu dendal mooy xaadim. mooy xaadim xaadim. ah d' accord xaadim xaadim. ah Mansour moom xam naa ko mooy yor son bi. Mansour waaw Mansour mooy yor son bi. Eh, eh, eh, Youssou ndeysaan tonton na gars yi <laughs> kaw moom kii kon mbokk yi. waaw bon tey ban morceau nga la bëgg yow yow. bi ma leen njëkk may. balaa mhm. ma ciy ñëw di leen euh, wax ne. Alaaji Malick Soumaré euh, woote na nee na bég na ci li nga xam ne. Alaaji Malick Soumaré <laughs> bég na ci morceau lii mu bëgg a way tey. waaw léegi. sëñ Medoune sëy sa xarit. sëñ Medoune sëy borom taw féex. waaw woote na nee na moom bëgg na. nee na bëgg na ci marché bi sëñ Medoune Seye. ah sëñ Jili Mbacke. Mbacke Balaye sa. sëñ Jili Mbacke nee na moom sopp na émission bi mu ngi koy seetaan. nee na sopp na émission bi mu ngi koy seetaan. maman Mbengue maquilleuse ci groupe Kouthia Show. mu ngi koy seetaan. ah maman Mbengue ndeysaan. Youssou kañ ngay waay ah ah ah ah ah Fatou Kiné Traoré nee na mu ngi seetaan émission bi. Fatou Kiné Traoré mu ngi seetaan morse bi. nga xam ne Youssou Ndour moom la war a way. laa ilaaha tey dina neex ah. tey dina neex. et Abdou Sidibé usine benn tëli nee na moom morso cappaacoli moo koy daaneel. Abdou Sidibé moom nee na cappaacoli koy daaneel. Youssou Ami Thiam Chéri Koutia. Eh, eh! eh, ah, nee na o fañing fañ fañ séeréer la bëgg warso Youssou Ndour ak ki euh, euh, euh, moom mooy. yande koddu yande koddu waaw ko defaraat waaw bi nga ànd ak yande koddu waaw waaw moom la ami càmm bëgg ami càmm moom lay ñaan inshallah rabbi depuis Sandiara depuis Sandiara jërëjëf Serigne Saliou benn sama xarit nee na mu ngi seetaan mu ngi def ay ñaan mu ngi seetaan ah mi ngi def ay ñaan mi ngi seetaan Youssou waaw tey tey nga war a tijjee morso tey ban morso nga yaakaar ne boo ko tijjee waaw may may may may eh kan salut. kan ci Saint-Louis Mané eh, sama waaw ci kër gi la bokk ci staff bi la bokk mu ngi nuyu. mu ngi nuyu ñëpp. ndeysaan Saint-Louis Mané eh la famille Madi Dramé. Madi Dramé mooy ménager bi mu ngi seetaan. Madi Dramé yi gis nañ émission bi Madi Dramé jàpp Mara Dieng ah. ah Mara mi ngi seetaan émission bi. kon léegi après dañuy ñëw def benn morso morceau kii euh, euh, wax dëgg Salé. Eh, Alaaji

chéri Thiamas Fat Ndeye Mbaye nee na mu ngi déglu émission bi mu ngi koy seetaan ak xale yi. ndeysaan Mbaye Mbaye ngi seetaan émission bi ak xale yi Youssou. ah ah ah ah ah. Abou Bilal. kan ci. Abou Bilal. ak soxnaam kontaan na. Abou Bilal it mi ngi suivre émission bi ak ak soxnaam. ah. doom doom gërëm na baayam biran Birane nee na papa je à lécole et je suis l'émission. oh félicitations Birane. <laughs> Bouba Ndour sa femme. eh Bouba Ndour sa femme mi ngi ci émission bi <laughs> ak kenati. Jacob Jacob Duvalier. Eh, Jacob Duvalier moo nekkoon Kassav mooy nuyoo nii. Jacob Duvalier kon léegi dañu ñëw def benn morceau. dañuy waaw waaw. bon ah, je pense que tout est en règle ah. waaw tout est bon kon léegi. commencé def émission bi ñu commencé def morceau premier morceau bi ah. maa ngi nuyu maire bi. maire ban <laughs> sama yaay mu ngi seetaan en direct Adja Soxna Mboub. Adja Soxna Mboub mi ngi seetaan <laughs> donc kon morceau bi may naa ko maire bi. Mhm. Eh! Ndey Seynabu Ndey Seynabu waaw taaw bu jigéen yàqul dara ci kër gi Ndey Seynabu taaw bu jigéen yàqul dara ci kër gi bon léegi ñu commencé premier morceau waaw waaw premier morceau bi nga xamante ni nii moom la Youssou war a way di way woo xam ne nag gars yi dama bëgg eh, Mati Samb couturière baax yaay Mati Samb couturière baax yaay wax dëgg yàlla mi ngi si biir émission bi mbokk yi mi ngi noonu kooku ngeen seen ma Youssou Ndour ma noonu daloon wax dëgg yàlla war a way nag askan wi war a bëggal askan wi. eh kookal tonton Pierre yëmbal woote na nee na moom tamit kontaan na mu koy seetal waaw tonton Pierre yëmbal woote na na waaw tamit Youssou euh, tey. ban morceau nga yaakaar ni wax dëgg yàlla boo ko wooyee wax dëgg yàlla. kon émission bi nga xam ne mooy fii tey. fii tey ñu ngi gërëm ñi nga xam ne. ñoo ñuy déglu di ñu seetaan. ñu ngi gërëm ñu ñuy déglu ñu ñuy seetaan mu émission boo xam ne live and direct la. live live and direct la. Apulaay bu affaire yi pare ñu commencé ah. gars yi bu dara seet. Eh, eh, eh, kan kan ci. sama copain sa copain. <laughs> kontaan naa maam maam maam Ndiaye suñu chéri la. maam Ndiaye suñu chéri la. wax dëgg yàlla mi ngi seetaan émission bi. mbokk yi mi ngi noonu tey Youssou Ndour war a bëggal Sénégal. Eh, eh, eh, yaayu xale yaayu xale yi. yaayu xale yi. ayda woote na. Ah, yaayu xale yi Aida yaayu xale yi. wilaay Youssou. waaw wax dëgg yàlla ñu war a dellu. ci premier morceau bon léegi def benn premier morceau. ngay mbay jàpp leen. ñu def premier kon émission bi fii tey. fii tey. kokal la Omar Gueye ak jabaram Omar Gueye ak jabaram moom tamit wax dëgg yàlla mi ngi nuyu waaw mu yor sécurité bi. mu yor sécurité bi. waaw kon ñu commencé waaw ñu commencé ndeysaan émission bu bees la parce que bu ñu toppee affaire yi Abdoulaye je pense que lépp nga en règle soxna Mariama kon ay ca gaaw bon gars yi jàpp leen Youssou Ndour eh! war a kookal la Jamil Ba Yaraax mu woote na président fan si club Youssou Ndour Yaraax Jamil Ba Yaraax <laughs> président fan si moom tamit def na woote bu mu ngay woote monsieur le maire Pape Madiop Diop Pape Madiop Diop. <laughs> woote na woote woote kon ñu commencé. gars yi ñu commencé jàpp Abdoulaye je pense que tout est en place ah. tout est en règle. émission bi fii tey. fii tey waaw tamit man émission bi tamit émission bi émission bi émission lan la. Thierno Baro. Eh! woote na Thierno Baro it woote na. Youssou mooy jaay banaana gàlle mooy jaay banaana gàlle. mooy jaay banaana gàlle sama jaaykatu banaana. may jàppal leen ko temps baa ngi nii xoj Youssou dafa war a waay. Eh! kan la. kan la Saña. Saña sama kër mooy togg mooy toggal xale yi. Saña mooy mooy toggal xale yi. bon léegi on commence. Abdoulaye tout est en règle tout est en règle. Mbengue on fait le premier morceau. yëpp yëpp c'est parti ah. jàpp kooku kan la. c'est attention am na ko mu fàtte. kooku kan la même tuuti. kan Babacar Diagne. Babacar xarit mu seetaan woon ma léegi. Babacar Diagne mi. bon toog mag bi fii tey. on démarre topp on démarre Abdoulaye tout en règle ah. en règle Youssou. Birame Ndiémé. Birame Ndiémé man. Birame Ndiémé Birame Ndiémé. ban eh, eh, eh, kan ci. waa léegi kan sama doomu ndey. sa doomu ndey kan la kan la <laughs> Youssou. Omar Pène woote na. Omar Pène woote na. kon daf may fàttali sax ay gars yi ñu def ëllëg si biir ah. ëllëg si biir ndeysaan. ëllëg une deux trois et. Eh! kooku la. bu bees la fii tey actuellement mooy toj mooy toj groupe Futurs Médias. Gaston. Gaston man. Gaston benn Gaston benn it na. mu koy nuyu. Youssou on démarre. gars yi bon léegi eh dernier morceau. Youssou Ndour a way tey. Eh, paa bi woote na Alaaji Iliman Ndour. na moom na tamit na ñaan di ma say baam ma wax la li nga bokk ak Seyda Aboubacar mu jur Roqay Njaay Ali Boy mi sambay naar duwaare sambay naar mbokk yi Apulaay moo nekkoon ci réalisation bi feggoo ki nga xam ne nag moom mooy euh, Serigne Mansour di jàkkaarloo ko benn jëm ñaari caméra di soxna Seyda Bintu Ndiaye di am mbégte contentement ci képp ku seetaan émission mbokk yi nag tey nous avons nag euh, une invitée euh, elle s'appelle Jamila qui a créé une application qui s'appelle Bon Plan Bon Plan en ligne c'est juste une application dès vous voulez faire la restauration l'hôtel et tout vous appliquez le Bon Plan en ligne avec Jamila vous avez tout ce que vous désirez sur le plan communicationnel et vous allez voir que euh, il faut plus se déplacer pour chercher certaines informations avec Jamila Bon Plan tu euh, là avec des bons plans des bons plans des de coins recoins et tous les hôtels restaurants de la place tu vas avoir avec Bon Plan c'est une application que notre consoeur et notre euh, elle s'appelle Jamila qui est ici au Sénégal bienvenue à Jamila et notre ami Sila qui nous a fait la, présentation merci et bon séjour au Sénégal mbokk yi ñu am mbégte ak contentement bu mag di gërëm képp baax di gërëm alaaji Malick Soumaré eh, ca banque Jidda soppee suñu papa alaaji Yerma Der ñu ngi koy nuyu di am mbégte contentement Thiamas ñu ngi dem nag ci nga xam ne moom mooy lii di immigration clandestin ñun suñu communication jëm ci loolu dañ koy def en version humour pour xale yi toog il faut nga am loo leen tegal li ñu leen di tegal nag dañ leen koy tegal juste pour ñoom ñu am li nga xam ne moom mooy mbégte mbégte bi mooy fexe ba xale yi di reetaan waaye wàññi seen stress stress sax mën na laa génnaloo si biir dëkk stress mun na laa génnaloo ci foo xam ne euh, euh, euh, caamaas si laa ngi ne la ibil ko buntu bi xam naa ndaw si lay seen yaa dégg loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la te am solo bi mu am solo mooy tax xale yi mën a toog ndax bu fekkee toog nañu rek te seen ànd xel bu dal ñoom ñëpp yàlla mun na leen defal jàmm kon une fois encore bu ñu toogee rek liggéey mun na am parce que liggéey boobu noonu am na fii en Afrique vous la dame elle s'appelle Jamila elle est là juste pour faire euh, une application pour aider les jeunes à trouver quelque chose donc euh, cette application peut aider beaucoup de gens à à à à faire des choses qui vous allez euh, vous voyez hein, il faut créer des applications pour donner du travail à tout le monde donc félicitations à Jamila et bienvenue au Sénégal pour votre projet que Dieu vous accompagne et vous pousse dans ces une bonne succès hein. Maintenant immigration clandestine <laughs> ñu seetee alaaji tafsir saaxo ki nga xam ne mooy tafsir gay tafsir gay alaaji tafsir gay ñu seete ko lan la ci xam <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf alhamdulilah mbokk yi ginnaaw waaw gan gi naan mooy di yëngu ci diine waaw dañ koo xamante nii ba mën a jàpp gis ci moom xaala laaw di koo xamante nii ci même réew kenn dootu ko présenté Abdourahmane maa ngi lay maa ngi lay fay sa micro dégg naa la dëgg la yàlla na la yàlla defal jàmm kontaan naa Chérif mu ngi lay nuyu. Chérif ab ñoo waroon ànd. ndeysaan Chérif waaye yàlla dafa def mu nekk ci benn tudd bu mu demoon. ne ma fu ma dem mooy sama takkandeer. <laughs> moo tax ma ne ko bàyyi ma dem représenté ko ci biir émi euh, ci émission bi. dëgg la waaw. jërëjëf Tafsir ñu gis ni nga taxawee ci diini tey ñu am ay laaj yoo xamante ni dañ la ko bëgg a séq at yow at li nga yëngoo ci diini tey boo gisoon koo xamante ni wax dëgg yàlla da ko fekk ci buntu soirée nga ne jëpp taxaw. tafsir nga war leen a wàññi nan ngay comporter ak ñoom ba waññi leen ñu delluwaat ci diina bàyyi loolu. xam nga soirée dem fa ak colin ba ngay fay demee la. Mhm, colin nga dem bëggali sa xol dara nekku ci. dëgg la waaye ormal sa bopp ci kaw génn. Mhm. say waajur nga làq leen li nga xam ne moom nga génnee. Mhm. sol lu gàtt. daa dee génn say cër ba ñëpp gis ko. Mhm. loolu dafa bokkul ci wormal sa bopp. wormal sa bopp. bilaa waaye soirée dem fa kenn ku nekk ak sa bëgg-bëgg waaye na fay demee. na nga fay demee. mun nag fexe kii ngi woote daayira kii di woote soirée. Mhm. yooyu yaay xool fi la neex nga dem fa. waaye yàlla rek moo xam. ormal sa bopp nag bokk na ca ña ngay romb pour dem ca bërëb ba ngay jëm bu ñu la gisee de doomu diw ñu ne ah xanaa sañ ta def lii. jërëjëf waaye nag boo ko defee ci noo ko ormalee yaa xam. cest la fa yóbbu yaa xam. dëgg la ndax nit kenn du ko wañaar na ko lii ngay def par la force. par la force démocratie ci alxuraan la njëkk fekk baax. dëgg la yàlla moo ne nangul leen ñeneen ñi seen jaamu yàlla ak seen diine kon ñun fii nañ ko war a njëkk defal doxalee. dëgg la ko ngeen dégg noonu mooy tafsir waaye tafsir dina am leneen loo xamante ne nii dina la ko laaj bu fekkee wax dëgg yàlla caricature yi nga xamante ni nii da nga ko doon ko doon caricature yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga taxaw taxawaay bu am solo tey boo ci doon jàngat nan nga koy jàngatee. maanaam. caricature yi nga xamante ni ñooy. waaw loolu rafetul dañ koy dox ñun xeex nañ ko. Mhm. dox nañ ci xeex nañ ci. def nañ ci marche xeex nañ ci te ab jullit noonu la war a doxalee. ab jullit noonu la war a doxalee. waaw xare ba dee ci war dox ba dee ci war a wax ci ba marti loo ci def rek am nga ci jihad. am nga ci jihad. jihad bu rëy la. am nga ci jihad maanaam fexe ba sauver ay nit ci ay bakkan waaye fexe ba wormal diina bi nga nekk ak kilifa diina yi wormal bi nga leen di wormal noonu yàlla suñu borom nee na boo leen di wormal di wormal di ci wax ba dee ci jihad nga. ndax ku la sàmmal sa sëriñ war sàmmala sàmmalab sa yonent sàmm na ki nga xam ne moom la say eh, suñu borom daa dee bëgg ndax moo tax ñu daa dee ñu daal ñuy bind alhamdulilah rabbil alamin gën gi mbindeef di Seydina Mouhamed p sur lui borom bare wóorus bi bi nga xam ne wax dëgg yàlla moo tax ñun ñu daa dee nekk ci àddina dëgg la wax dëgg yàlla tafsir li la doon doyee wax dëgg yàlla waxal nañu ko waaw ku la xam-xam la ci diine xam la ci ngor jàmbaaru lislaam foo xamante ni nii bu ñuy wax lu baax ci réew mi à ah tafsir dina la woo. Oh. tafsir nag am nga lu la bett nag. mooy lan. gouvernement bi daal gis nañ ni waarakat yëpp yaa leen doy. félicitations. te loolu loolu sax la. Uh-huh. loolu ndam la. Uh-huh. ndax li ngay wax ci diina la. Uh-huh. li ngay wax ci ci doomu aadama la. waaw kon loolu da loolu la koy jaajëfal. parce que man rek maa fi waaraatekat boo xam ne damay wax ñetti langue ñetti langue damay làkk arab di làkk français di wax olof. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah ma fu ma neex. mun naa woo gars yi ñu ñëw dem naa ba France def fa conférence. sur l'islam digg lii moo tax moo tax moo tax ki boo xam ne nee ko. oh les croyants venez. approchez je vous parle. digg lii. xoolal lii ci tubaab xoolal lii mu làkk ci tubaab. je vous parle de Dieu. digg lii et de son prophète Mahomet. eh la lumière de cette terre grâce à lui Allah nous a créé. akbar Allahu akbar. notre référence. way dëgg lii. le prophète. qui est venu nous sauver. Eh! ila ila ila. God is one. God is ah da ngay lakk anglais. God is one. God is one. tafsir ngay lakk anglais. God is one. God is beautiful. nga di. <laughs> yàlla est beau. Eh, yàlla est beau. yàlla yorul dara lu ñaaw. ba déedéet déedéet. kon lu mu laal rek day rafet. la mu laal moo gën lu mu laalul. jërëjëf. le prophète Mahomet. eh. le prophète le plus beau. Eh, ndaw. le prophète Mahomet. eh. est le qui lance des messages. oh. pour apaiser les tensions. apaiser les tensions surtout. et pour amaler lance apporter son soutien aux musulmans. Eh, et les hommes de la terre. la ilaha illallah. de croire à un seul <laughs> <laughs> wax dëgg yàlla wane nga ko. ndax yow rek yaa fi làkk ñetti làkk yoo xamante ni benn bokk ci moom bu ci nekk da nga ci waa one God is beautiful. God is one God is beautiful mooy di gilli. <laughs> beautiful. ah ko ko ko ko lii làkk da ko anglais waaye am nga fii wax dëgg yàlla cinquante millions yoo xamante ne nii gouvernement bi ñoo ko yëkkati te ko solo. man mii. ah da nga ko lu ma def ba ñu jox ma ko. xam nga ndax la waaw gis ni ngay làkkee arab ni ngay jàngalee alxuraan. Ah. ni ngay sensibilisé fi la di la toll wax dëgg yàlla moo tax ñu yëkkati ko jox la ko. waaw lenn rek dañ ci bëgg. waaw loolu xe ban lu ma def te diine jaral ma ko sama bakkan bii teg naa ko pour diine. luñ ma woo ci diine pare naa ci. alhamdulilah pour dee tey pour lakk dama ne buñ nanoon fii tey ay kaamin moo fi nekk ma ngay lakk jaral la ma ma dugg ci biir lakk waaye naa génn kaamin yi. la ilaha illallah. je suis à sauver. le Saint Coran a un brûlure dans un appartement. jërëjëf et me brûler vif mourir avec le Coran. dëgg lii moi je n'ai peur de rien. ragalu ma dara. alhamdulilah rabbil alamin ma ko le Coran est eh. si cet euh, mortel. Hmm. il ma eh, eh. dara. la ilaha illa <laughs> gis nga tafsir. waaw li tax nga neex ma muy dëgg gu ci yow. <laughs> taqwa gi ci yow. wallaay wallaay tey neengal ci tubaab. Hmm. bu fee doon tàkk ay alxuraan ne fa. di nga xuus. dam jëli ko. rek bere alxuraan ñëw teg ko jox askan bu may la ilaha illallah loolu loolu ku dul jullit. lu état bëgg nga ne. état xamul lu mu bëgg. waaw jërëjëf tafsir. xam nga lu état bëgg. waaw. guddi yoon toll ku ne xam na ni xale yaa ngi jël gaalu loo ci yii di dem di di di dem barsa waaw maa leen mën a waar. te gis na ni rek yàlla mën a wàññi. bilaay mën naa wàññi. gis na ni yow rek yàlla na mën a taxaw. émission bu mag laa ciy def. wax dëgg yàlla wax ak xale xale yi dégg la. laa ilaaha illallaah. Tafsir. waaw. moom la état bëgg. waaw dem mën naa am émission 2 mën naa dem TFM mën naa dem ci rajo def émission loolu yomb na yàlla. alhamdulilah émission bi xam nga fu ñu ko bëggee. waaw. Tafsir nga waajal sa bopp ci 50 millions yooyu. waaw. dem ca tefesu kii ba teeru bay siwdi gii. waaw. ne cëpp ci gaal loote gi. waaw xale yee waaw. xale yee yéeg ba gal gi fees del waaw ngeen waaxu ànd ak moom dugg ci biir gal gi gal gay dem taf safir yaa ngi toog gal gay dem tafsir yaa ngi toog gal gi di dem tafsir yaa ngi toog ba duu si duu si géej gi jóg mu wóor na sa diggante ak île de Canaries yi fa gal gi këpp woon fi gali xale yi këpp woon nga xam ni musiba yu bari fa lay amee tafsir na nga sipp taxaw jàkkaarloog waa gal gi waar leen te mën nga ko diine la ñor yow ci diine ngay dox mën nga loolu wala tafsir. waaw ma ne. wala tafsir. état Sénégal lu mu. laa ilaaha illallaah moo tax gis nga. ma accompagner xale yi. nga accompagner xale yi. dugg ci biir gaal gi. dem fa douche ne. nga xamante ne fa la gaal yi këppee woon ba yi bari fa lay am. la plupart newat gaal bu fa ñëw këpp. nga ni cëpp taxaw nag. mu wóor na yaa nga fa waar xale yi. de delloowaat lañ ci yàlla. ñiir xale yi. kon yi ngay def ci plateau bi léeg nga wax ba yuuxu arrière ci gaal gi te gaalu loo ca nga taxaw. ma bëggoon daal. loolu mënuma koo def ci tefes bi. tefes yi lan. balaa xale yi di dem. mën nañoo jaar beneen tefes boo ko defee tefes yi téeru bay suñu euh, gars yi mën nañu jaar xale yi mën nañu jaar ngor di wala ñu jaar yaraax wala ñu jaar mbuur yow de foog nga yëg ci gaal gi fa gaal gi këppee woon nga xam ne mosu yu bëri fa la yem tafsir xam nan la nitu yàlla nga da ngaa fonk diine. man Tamsir ma dugg ci gaal gi. voyage clandestin immigration clandestine avec les clandestins jusqu'à la mer pour faire retourner les enfants. moi waaw bilaay mën na ko. tafsir lii la la. l'islam a bien dit que ne suicide xaru ah, tafsir sañoo loolu. tafsir. Hmm. tafsir sañoo loolu. Kajoor laa dëkk. amul ndox. moo tax nu woo la yow bul fàttali ni li ngay def deux heures. sa tafsir mu taxaw. jàppante. <laughs> wallaay sa mbir la li may sangu bëriwul damay jàpp rek. nga ni naa yor jàpp rek waaye du sangu sax ndax ragal ndox. waaye may tafsir yaa fi léegi léegi bu imal bi alxuraan nekkoon. nga di waaxu jëli ko ndax ndax ñeme diine. Ah. waaw maa ko waxoon bu fekkee alxuraan la mën naa koo rawale waaye. waaye xale yi nga xam ne ay jullite yàlla lanu. Ah. du say doom ñi di say frère. ànd ak yow toog ci gaal gi ne tekk toog fa li ci gën neex mooy fa gaal gi këppee woon ko ci mën dara nag Iran Ndaw Iran man yaay ak a a wax ak xale naa fay xam nga dafa am biir te mën naa tëmb man ni may gis nii grand bu bi bëri may yaxu neen la lambal say faar ah, lambal sama tafsir dimbali ma ngir xool bu doon jën pépé sulaa ah waay waay déedéet waay yow dama ne billaay bu may jën pépé sulaa dimbali ah. ma ngir yàlla rek seetal keneen kenn seetal seen télé boobu TFM boobu waaw am na ñu fa duufu ñu fa nekk seet leen Ah, waaye tafsir tamit bu nu wax loolu waaye yow tamit eh, man ma géej. yaa seetal ñoom Pape Aan ak oustaz yooyu. ñoom ñëpp Pape Aan man. mais men na war na ah. mën a génn dem foofu. yow yaay na doy ci diine. Hmm. yow li ngay wax ci diine kenn du ko wax ci mim réew. waaye dem dem jëli ñu bëgg a xaru nag ànd dem dëpp leen yaa ngi a yem de. nga ni xaru la de. Eh, yow xaru woo jox na la cinquante millions. waaw nañ ko jël yii bakkan ëpp na cinquante millions baax na. dama am ay programme yu may def nañ ko bàyyi ba beneen yoon. programme la. ay conférence sur l'islam ay fële à Nord Foire. ba doo xale yi. bàyyi leen ñu dem rek xale yi dañuy xaru te kuy rawale ku xaru yaay ñaara yem. ah di saf si sonal hmm. ba doo wëññi xale yii nga xam ne si eh, diine lañ bokk. seetal kii nu mu tudd. kan boobu oustaz boobu Tayib Socé. man men na. ah waaw yow sa xam-xam gi ci rii mi mara de tali. man fan yii sax dama bopp bi day metti. sa bopp ban maa tere génn ci naaj bu tàng bi. taxul ginnaaw tafsir wallaay wallaay gis nga sama facture sones bu ñëwee ndox li may fay ay 2000 francs man jàpp rek du ma sangu sax jàpp rek jàppi lan jàpp rek raxas samay ah, li ngay wax ci diine gi yëpp hmm, diina dugg ci gaal gi xool te pourtant dafa yomb de gan diine waaw diine l'islam gi nga ni léegi léegi caricature yi def nga ci mbir mu solo te li ma gën a neex ci moom mooy fitu tafsir kon yooyu inde lan ah Cheikh Tafsir bu la jaral loolu eh Sénégal dal laa soxla waaye yow tamit luy jaay lii waaye xaalis ah, géej jarul lii Tafsir géej jarul lii di te yow yaa ni jaay sa bopp mu waar ba tëpp waaxu wane boppam diine te li ma gën a neex ci moom taqwa ji surtout ngëm-ngëm mu solo ay Tafsir da dem waaye. dama am conférence. conférence kat Inde fu sori du dem fa ñëwul conférence ci l'islam Inde. te dafa ko Sénégal Inde nga ko def laa ko defee damay jël temps foofu. kañ ngay ñëw. gaw ma ñëwaat de. ah ci noonu ñibbi ci Sénégal foofu gaw ma dafa bëri ay buxaaba dama dem pour waar la ñu dëpp ñoo gëm ci yàlla da yàlla am. waaw léegi nag yow yaa ngi dëpp dëpp ji ay buxaaba. waaw tegal gi nekk nii. te pourtant méttiwul de. xam nga lu ma bëgg nga xam ko boog nga bu denn benn yoon. mu jeex waaw xam nga lan la. lan la deewuma. am nga ci tafsir am nga ci dund. deewuma deewuma deewuma léegi un euh, point un deewuma. ñaari kay ki ko commandé mën naa dem. di ko ku joxe xaalis bi état. état joxe bu demee day tëmb. moom du lap du lap na dem. yii mun de tafsir lu tax nga naan xaaral laa waxaadu rasul. deewuma. yaa yey maa demul. am nga ci dew ma tey dew ma ëllëg. fenn laa demul. dem jëli ñuy xaru ak yaa ngi xaru benn leen dew ma fenn. xaru xaru la kay jaxawa kay. xaru xaru la na ku nekk am fii ko fii laa ko jàpp dew ma tey dew ma ëllëg. xale yi nag ku leen xale yi wax nañ ba sonn dem dañuy dem ba leen nga seetal ñeneen ustaas yi nekk ci tele bi ak ñoo aay ñoom. kan ci Pape An Pape An mais. Pape An mais ngay gis kon Paa Firi Gént. Paa Firi Gént man. Thierno Ndiaye. eh Thierno Ndiaye daa tënk ko Thierno Ndiaye. gis nga ki ci gën a xam gaal nag ak looco. muy kan mooy garmi gàtt bi kon miin na géej. boo demee RFM El Hadj Assane Gueye géej rek la mën. laa ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp même sa patron. ñooñu dañoo nëbb suñu du laa ilaaha illallaah bu demoon ci gaal gi léegi way benn way rek xale yëpp dëpp. alhamdulilah waaye ñooñu ñëpp nag boo leen bàyyee nag bëgg ma fee jëli. kon man nga bëgg a rey bu ñu la taamoo nag yow. man bu ma kenn taamu. Eh, te léegi sax bokkutuma ci waaraatekat yi waykat yi laa bokk. Ah! wayu ma waaraatuma damay ñibbi